am solo lool ci dundu doomu aadama tabax lool ci suñu wàllu wér-gu-yaram rawatina nag jamonoy nawet bi ñu dëgmal salte yi bari lool ci mbedd yi li ko waral bokk na ci nit ñi di lekk di sànni mbedd yi te loolu mën ñu indil ay jafe-jafe suñu wàllu wér gu askan wi nekkee diggante Touba ak mbakkee di ci indi seeni xalaat. nga feebar yi ñuy wax ni yëpp li ko indi mooy ñàkk set erreur bi njëkk mooy jël ndox teg ko ci mbedd mi di ko takk ci mbedd mi poussière bi di ci daw di ci ñëw nga naan da nga koy nga takki mbuus teg nit ñëw naan rek sànni ci kaw tali bi wala nit ñëw lekk ba naan pare sànni ci kaw tali mu mel ne set gi moom maa dama koy wax chaque jour man yàgg naa ko fu ne mooy état munu ci dara set gi ci ñun lay tàmbalee ne ku ci duggee néegam wala nga dem ci tuwaale tam na mu koy defaree mbedd bi moo gën a yomb defar te ku ci ne boo duggee néegam day bale 24 nit ñi ñoom ñooy war a jël seen engagement bopp mu wér te ne dëkk bi maanaam fayda la ci murit bi mooy buntu këram ak mbedd mi li wër këram kenn ko koo setal mu ci yaakaar kenn kooku mooy acte bi njëkk ñaare bi mooy comme sàggan nga ba mënoo setal sa koñ mënoo setal sa buntu kër war nga mën a yërëm ñiy setal. sëriñ bi moom di xamle ne ndax ku lekk ba pare poubelle mbalit yi mu ngi ci mbedd soxna si mel ni kuy dëggal lu mel noonu di xamle ne nit ñi war nañoo yaraat seen bopp bu baax ndax lu mel ne dëkk bi di Touba jombante nag ak salte te yar ñu tàmbalee ko ci li nga xam ne ñoo di mag ñi mag ñi nga xam ne dañuy lekk ba pare di romb li nga xam ne moo di poubelle mbalit yi di sànni ci ne moo di mbedd mi. loo gis la euh, éducation de base loo gis la euh, yàlla ba nga nekkee xale la commencé quoi mais boo ba nga nekkee xale boo tàmmee bonne manière bu màggee aussi moom ngay màggaale mais gis mag moo xam ne def loo xam ne xale bu ndox moo ko def mais daf ko tàmm mënu ko bàyyi quoi loo gisee commencement bi ba nga nekkee xale la quoi. ñun ci suñu bopp ñun noo war a yaraat suñu bopp am nañu comporté woo ndax borom dëkk bi lu set rek la bëgg lu baax rek la bëgg. te loolu mu bëgg nag moo tax yàlla may ko lii mu ko may tey jii mu am lii mu am ñun ñi nga xamante ne danoo ci suñuy dëkki maam kenn ku ci nekk am nga sa dëkku maam waaye danga koo wàcc yaakaar jëmi sëñ Touba ak dëkk bii moo tax nga wàcc ko fa ñëw kon ñun bu ñu ñëwee danoo war a yaraar suñu bopp yar suñu jëmm yii ba nga xamante ne li borom dëkk bi bëgg ci dëkkam bi ñu koy doxal tegu ci yoon wi waaye da ngay gis magum jëm wala xale ndax mag moom moo war a yaru gone topp ca ndax mag bu bu amee nu muy doxalee rek gone gi bu ko gisee day foog ne noonu la ndax da gis mag yi jëm ñuy dox ci mbedd yi bu ñu jëlee lu ñu mën a lekk ñoo xam muy banaana ak xolliti gerteeg lu nu mën a def sànni ci mbedd yi mbuus yi yaa ngi dégg kaas à zeta yi loo xamante ne nag lu ñu jëfandikoo la rek bu ñu noppee ci mbedd yi lañ koy sànni te dëkk bi weesu na foofu. ñeneen ñi di gën a indi ay firnde di gën a joxe seen i xalaat di xamle ne daal war nañoo sàmmonteeg set gi tey soññu ñi nga xam ne ñoo di taalib yi nga xam ne ñoom lañ bokkal fii. li ñu war a defal sëñ bi ci dëkk bi mooy set gi ba pare lu waaye mën a liggéey sëñ Tuubaa ci dëkkam bii te jiitloo ci set moom déedéet set mooy jiitu an nasaafa mina imaan ginnaaw set nag li ci des lépp sëñ bi dana la ko defal kon nañu ci góorgóorlu te xam ne bala dëkk bi daa am xidma gu ci nekk ndax maa ngi fàttaliku benn bayit bi suñ waa di wax naan innal lazina saarihoon li xidma fa lahum diyaaru wasal janna mu mu ne ki yënguti ngir satal sama dëkk bi kooku kër da koy am àjjana am na kër yu ma réservé àjjana yoo xam bi ne ñii xidma ëllu xidma nag kenn gënu cee fort mooy kiy ñaqal suñ mooy kiy ñaq ñuq ñukk daw ca mbalit ma bu nu wootee nga joxe di ñaqal suñ tuwaa kon na ngeen satal dëkk bi mooy jom mooy ngor mooy lu ñu waxanteeg sëñ bi itam waaye bu ñu bàyyi bu sëñ bi gën gis mbali mi loolu gàcce la ci ñun. nit dafa war a yar boppam jàng ak cet ndax dëkk bi ku nekk fii ñëw te képp ku fi ñëw ku ne ci jëmmi doomu aadama yi lay xool te doomu aadama nag ñoo war a am na nu comporté woon noo xamante ne képp ku leen gis ne ah ñii kat dëgg-dëgg ay murid lañu. ñu bëri ci askan wi nag di ñaan kenn ku nekk waggar ci sa bopp ak cet waaye tamit di sàkku ci kilifa yi ngir ñu jàpp leen ci ay jumtukaay ngir cet gi gën a mën a jàpp.